be la ndax kenn ko ñor kenn la bëgg kenn Sëriñ Tuuba ah tey mbokk yi seen doom seen mag seen rak seen jarbaat moo ñëw ci dëkkam pour seet si ay mbokkam wax ak ñoom dagaan seeni baat pour mën a dem ci assemblée nationale bu bees boo xam ne li ñuy ñaan mooy yàlla defal ñu fa majorité ba lépp lu ñu mbébétoon bëggoon ko def fii ci dëkk bii di Touba ak Mbacké yàlla def ñu mun ko motal ma leen di xamal ne bu dee emploi xam naa nuñ koy créer mais li ma gëm mooy emploi nit moo koy jox boppam soxlawul ngeen di dem fenn di wuti emploi gëm leen seen bopp ngeen taxawal seen liggéeyu bopp ñu jàppale leen ci ngeen am li ngeen bëgg loolu lañ gëm loolu la ñuy woote waane loolu balaa muy mën a am il faut que liggéey bi ñu li mu soxla muy alal ñu jël alal jooju mettre ko à disposition de la jeunesse mu agsi su ndaw yi agsi su jigéen ñi ndaxte nag sunu yaay yi sunu sœur yi sonn nañ comme ñun xam nañ yoon wi suñu yàlla joxee ñu am majorité sa assemblée nationale ñu teggil leen coono boobu may ñëwate ci beneen fànn boo xam ne fànn bu ma soxal la ndax man ci wàllu tabax laay liggéey wàllu defar ay tali wàllu defar assainissement te gis naa ne fii ci Mbàkke Touba daf fee sooxe nguur gi defuñu fi dara amul assainissement amul éclairage ñu ta bu set ñuy nekk fii dañu tànqal di wax ay di wax guddi bëccëg te defuñu fi dara kooku nag ki ko mën mooy ñun ñii te bu soobee yàlla bu ñu demee assemblée nationale suñu priorité Touba lay nekk ak Mbacké may woote sama mbokk yi ñi nga xamante ne man ak yéen ñoo bokk fii bokk Bawol bu la 17 novembre jotee 2024 ngeen yeewu ci suba teel jël seeni carte dem sànnil ma ko man seen doom Abdoulaye Sylla ànd beesal Sénégal